Mees maa lay nuyu waaw ah, génn àdduna Père Balla nga nekk doom nekk mbër nekk ci écurie bi ah, lan la lan la la def. waa sant sant yàlla rek julli si bi sant suñu waajur mu nekk affaire bu tiis si ñun bu metti si ndax Père Balla papa woon si ñun papa la entraîneur lépp rek def na ko si nekkoon suñu wéttali doon nekk suñ lépp ñu ñuy tey da nga daan toog sa kër sax ba guddi nga laaxatu ñëw si moom wax ko sa soxla si xalaat mu wax la ni ngay war a doxalee te boo ko defee am ci ndam kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax fee mu jëm gënal ko fii mu jóge te am nañ si yaakaar bu baax a baax ndax xol bi setoon na laaboon na ñëpp la yéene woon jàmm heure bu gisee lu baax woo na ñëpp. digal leen ko pour ñu def ko te boo xoolee lu mu réussir nga xam ne caaxaan du ko réussir ku amul xol bu set du ko réussir ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax te ñu xam ni Père Balla dem na bu demee na moom moo dem mais jëf du dem kon Père Balla ngi fi ba léegi ndax jëf jaa ngi fi ba léegi bàyyi na fa ay doom ay doom ay doom ay doom bàyyi na fa ay taawi taawi taawi taaw Youssou Ndour doomam la Balla Gaye 2 doomam la Elton doomam la keneen ak keneen parce que ñun écrit bi loolu la ñu jàngal. mag jàpp euh, may loxo rak rak déggal mag loolu la ñu jàngal kon ñun ñëpp benn lañ dem na waaye jëf jaa fi du mosa dañ te boo xoolee ñu fi dajaloo ñëpp ñoom Pam Mama Abdou Diouf. ñoom Baye ma Ndione ngi ne ñoom Ousmane Diop mbër yaa ngi jóge fu nekk di ñëw kon lépp mbaaxam la tey boo xoolee fi nga xam ne famille moo fi toog du làmb de du làmb famille ñoo fi toog après bu jeexee bu ñu nekk waatee kenn ku ne del nekk si li nga doom mais ku fi ñëw fii tey nga xam ni ñëpp ay doomu nday lañ keroog boo ñëwee armée la ñëpp gis nañ la fa daje woon ku sa xel dalu si loolu rek sa xel dootul dal ndax yàlla neen wax nañ fu ñeen fukk nit daje ñeen fukk góor fu ñu daje foog am yàlla kenn ku mu forus bu ne allahuma mu nangu allahuma kon keroog la daje woon foofu noonu kenn xamul nu mu toll. te ñëpp amoon nañ yéene ji Père Balla buñ mënoon sax du dem billaahi buñ mënoon du dem waaye nag ya jaam ak pexem yàlla ak dogalam yàlla foofu la yemewaloon arpam ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla xaar ko àjjana yu gën a kawee suufu Cambérène bu oyof si kawam njaboot gi mu fi bàyyi yàlla teg si loxoom bu baax a baax a baax te incha allahu rabbi nit ñi dañ xam ne yàlla teg na si loxoom. mu nekkoon koo xamante ni moom mooy seul mbër bi yor école de lutte école de lutte bi tàggat ay champion bu ñu nee Balla Gaye 2 tudd Les 2 tudd Elton tudd yeneen champion yi nga xamante ni ñu ngi fa Père Balla tey jóge fa ban taxawaay ngeen war a taxaw ci seen rakk yi ngeen xamante ni yéen leen uuf ci kirib. waaw parce que boo xoolee durant un an wala deux ans si ginnaaw dafa mel ni daf ñu doon préparer dafa xam lii. parce que doon gëj doon na gëj école ba doon na gëj école ba ñun rek lañ fa bàyyi woon ba mu ñu fa bàyyee ñu jël Lamine Golo teg ko si kanam mën a Balla Gaye 2 mii nekk magu xale yi di leen jiital di leen tàggat si lu ñu mën ak lu ñu mënul lu ñu di gis ak lu ñu gisul mais lamin ak mbës ñoo fa nekkoon jiital xale yi ak abu beba Balla ñun nag bu ñu ñëwee mottali leen. kon préparé woon nañu bu yàgg comme lu ma la wax rek ma ne dem na mais jëf jaa fi ba léegi am na lu mu def si nit ñi si doomu aadama man sax du mu wax sama bopp mais am na lu mu def si nit ñi ñi xam ne tey incha allah rabi la mu jëbbatoon day gën a jébbi jëm kaw rek mais du dellu ginnaaw jërëjëf.